ñoom nag def nañ seen interview sànq def ko en différé san image gis na nit ñi faale wuñ leen impact bi ñu bëggoon ci Sénégalais yi amu ko sànq la TFM jël nag interview bi teg ko ci TFM ngeen gis Macky Sall di wax bi ñu koy njëkk a teg Macky Sall ñëw dañoo teg interview sonore bi rek teg photo bi muy wax ñoo ko tey testé xool. nous na doxul ñu interview parce que visuellement Macky parce que est agressif verbalement comme gestuellement dafa agressif léegi nag nañ bi audition bi doxul ñu visuel bi mais du dox bu ci kenn wax bu ci bu ci Ousmane Sonko wax opposition bi wax points grand projet Ousmane Sonko a ak liggéey ba muy liggéey nga xam ne Barthélémy Dias dafa war a rey ci Ousmane Sonko xool li Ousmane Sonko def fexe ba Ousmane Sonko nekk nawleem waaye Barthélémy Dias Ousmane Sonko du nekk nawleem daayiman ndax bokkuñu ay valeur bokkuñu éthique bokkuñu li ñu gëm Barthélémy Dias ab tappalekat la doomu système bi la ci système bi la juddoo ci la màggee ci la nàmp ba fenn ci tappale la xam ak sàcc ak njuut njaaj moom Barthélémy Dias njuut njaaj mooy liggéey moo tax mënut a rey ci Ousmane Sonko la Ousmane Sonko def Ziguinchor Barthélémy Dias am na dix fois plus wala cent fois plus budget Ousmane Sonko maire Dakar waaye ba mu toogee ba léegi bon Auchan social tabax ay armée gi ay pavé ay armée fekk ñu dee mu def a def ay millions ñu dund faalewu leen deful dara Dakar taxawaalu la sa nekk nekk ci hôtel yeeg ci avion première classe yeeg hôtel yu cher yi nekk ci diaspora bi Barthélémy Dias taxawaaloo ko ay cagam Barthélémy Dias liggéeyul man ci ñu ko faloon laa bokk ci ñu ko campagne la bokk rëccu naa Barthélémy Dias dama ko rëccu te dootul am sama carte c'est fini fu mu bokk dama koy xeex moom baax Barthélémy jaas parce que moom kenn du ma fooye tappalekat man man tax lu campagne yu ma politique wu ma pour ay tappalekat di nekk ci kaw dina palisé di jeex dañuy politique pour soppi xar kanamu réew mi ngir askan wi mën a dund am liggéey di ca dund loolu moo tax ñuy xeex Dakar salté tilim da koy xool poussière y a rien baaxte amul benn ambition amul benn compétence amul benn expertise sociale politique politicienne njuuj njaaj wax ci kaw wax ci suuf diisoo pencoo teg ay complot loolu kese la ñu xam kese bañ juddoo ba léegi loolu la ñu xam loolu taxul ñu lay fal dem ci ay armée yu ay nit dee tëdd nga leen di pavé ñun nit ñi dund lañ bëgg ñu pavé leen alal kenn du ko def ci ku dee alal kenn du ko def ci dee ndax boo xasee ba dee amatoo njariñ yàq alal alal joo xam ne ay miskin ñoo ko moom ay nit ñu ndóol réew moo xam ne nit ñi dañu pauvre li ñu am ci alal doyul nga war ko def ci askan ñuy dund nga bàyyi fa ñuy dund dem ca armel ya di leen tabaxal ay yoon yu jaar mais mais vous vous rendez compte dans quel pays nous sommes ce pays marche par la tête un Barthélémy Diaz di jël alal bu mel Dakar di tabax ay di pavé ay armel jamono yooyu nit ñi amuñu suñ jaar ñi ngi dox ci gannaaw bi seen dàll yi yàqu seen tilim réew mi Dakar salté foos yi ball fo yi baaxul buuxante yi mbedd yi xat jaaykat yi paccax paccax baax li qui tabax ay vous vous rendez compte ay millions ay milliards lay def ci ay voyage hôtel la d'avion premier classe qui, luxe lay dund baax luxe gëm dund rek la bëgg ay def limi def na ja ay jéegam nek ci hôtel ak place di wol aduna bi def ay mission frais de mission liggéeyul il faut ngeen xam ko ma fi taxawuñ fi diko campagne yewi askan di xex di wax lu ne pour mu fallu mako def nama taxawé won diko xexal pour mu fallu tay gisuma la taxoon ma ma diko xexal damay wëbutu ko xex man j'ai pas ces problèmes là ndax man damay xeex tant que maa ngi mën a xeex damay xeex su ma la amee ci confiance naa la xeexal su demee ba ma gis ne la ma doon xaar ci gis ma ko xeex dama taxaw wëlbatiku xeex la waaw nan damay nekk candidat baax ku la fekk nga da ngay xalaat ay politique yu nekk candidat Sénégal yow Dakar lañ jox mënu yow Dakar doogu mënu bi dara un an lu topp Dakar mënu bi dara bientôt un an et demi quinze mois defoo ko dara Dakar lu nit ñi teg seen bët dara mbënd mi léegi mu ñëw ngay dégg ñu naan ma nga joxe ay pompe pour pompe ndox maanaam que du prévisoire que du fet yi nga ma ngay joxe ceeb fee bon essence ma nga jox catholique ma nga jox musulman ya ma ngay kër kër dem seeti Maodo fee dem Touba fee dugg sol sa grand boubou sa kaftaan dugg fii joxe ay ndimbal si ay aide affaire corruption tappalay maan yooyu yooyu moo jeex ci réew mi lu ñu bëgg mooy des projets structurels def lu ne fàng lu ñëpp di jëriñoo waxuñu nga jël alalu askan wi jox ko ñenn ñi xañ ko ñenn ñi da ngay defal loo xam ne ñëpp ci yam baax te xalaatul loolu njuut njaat mooy liggéeyam loolu la xam rek ak tu es trop exigeant, bro. En effet, je suis très exigeant parce que je suis conscient. je que conscience, da am exigence. Conscience, l'on Conscience, nit ku ko am citoyen bu am conscience day am exigence ma suis extrêmement exigeant vis-à-vis de tout le monde Sonko ñep man damay ànd ya yow nak damay taxaw temm parce que li tax may ànd dama ko xam man tatchuuma rewuma réewuma ma sawar guy tëgg ci kon bi ma dégg téeli téeli ji ma ñëw taxaw ci sawar sabar gi tàccu déedéet man suma may dem ci tabax gi sawar gi damay xam ku tëgg sawar gi lan ñoko ko sax sabab damay xam la ca ne avant ma kay dem xool ndax jar naa damam déet nekkuma toog ci koñ bi rek dégg lu tëgg-tëgg rek ma dem taxaw man fekke boolewu ma ci lu may dugg damay xam lu mu doon sokkee tab bi wala bañ cee bi su ma ci xase ba tab day fekk ma peeg ko su ma ko peegee rek dama ciy dugg ba noppi ne taxaw temm ak sama ay exigence du ma la may dara man su ma man ma ànd ak yow coono lay doon ci yow parce que du ma la bay dara du ma la ndax li may ànd ak yow gënoon koo xam gënoon ma koo bëgg da nga ci jàpp ma jàpp boo ci defee ma ànd ak yow noonu laa fidèle aussi suñu bokkee ay gis-gis ci njëriñu askan wi nga yore ko man na maa dee avant ngay dee. duma la ba mukk tant que yaa ngi ci njëriñu askan wi je suis fidèle su ma demee ba na ay tappale ma la du dugal damay wëlbati ku fàtt sama yet noonu lay taxawee xeex mi parce que dama am conscience ci li may xeex li may xeex làmbatuuma ko li ma bëgg réew mi làmbatuuma ko loolu moo tax ma exigeant tu as bien fait tu a raison Akhenaton tu es trop exigeant c'est une vérité pourquoi je suis trop exigeant parce que dama bëgg réew mi baax yow miy wax ak man ni ma mel nga waroon a mel yéen Sénégalais yëpp bu ngeen meloon ni ma mel ci exigence bu ma àndeeg Sonko ànduma ko pour di parparloo du daay rek dañoo ànd ak Sonko parce que dafa am lu ñu bëgg ci réew mi yaakaar ko ci moom bu ki nekkee ñu ànd moom bu ki nekkul ñu sàq suñu ay yet dal ci kaw jaamuñu Ousmane Sonko xamuñu ko moomuñu réew mi lañ bëgg mu baax mu ne mën na ko defal ñu ànd moom ci confiance exigence tànkam suñu tànk Macky Sall noonu la ñu tax baax la kenn koo xam ne da jox réew mi bàyyi leen ngay loo def ñu ne gonga loolu ay lappatoo ko def

parce que tubaab yi jaaxaanuñu dañ lay jiital te liñ la jiital xamoo ko lu ëpp li ñu ko xamee li nga ci xam lañu ko xam mais ñëpp mënuñoo jiit ñu la doxal waaye yaa ngi doxal nag waaye ñu ngi lay xool li ñu xam ci li def sax yow xamoo ko ñun dañ laa jiital rek boo ci teggee tànk da nga xam ne sa yéen nag dootoo ko dolli exigence boobu moo tax tubaab yi raw ngeen naan non xawma

« Comment mën a fal kay mën a folli te ku mën a folli mën a joxe sa xalaat il faut mais quand même mais dans quel pays nous sommes ñun ñooy falaate mais ñi ñu fal bu ñu defee loo xam ne gisuñu ci suñu bopp amuñu sañ-sañu ŋàññi leen ngeen nekk démocratie lañ ne soyez extrêmement exigeant c'est à ce titre seulement que le Sénégal pourra être un pays développé. Le Sénégal ne sera jamais développé tant que cette masse critique dont parle Ousmane Sonko dans son livre Solution n'existe pas. Il nous faut aller tous vers cette masse critique de citoyens sénégalais extrêmement conscients, exigeants. On ne pardonne rien à personne. Moi, je suis très dur, je le sais. Beaucoup me le reprochent. C'est pas méchant, mais c'est de l'exigence. Moi, je suis quelqu'un qui tend vers la perfection. J'aime les bonnes choses. Je veux que les choses se fassent dans les règles de l'art, dans le respect de la dignité humaine. Un mandat électif, ce n'est pas, pas un cadeau c'est un sacerdoce ne la ko rien du tàngal bay match. ay responsabilité la liggéey la futteeku cooral du noof laay du tëdd ci hôtel yeeg pas de non donc dire que est trop exigeant c'est une fierté Les ma leen naqare est trop léger trop approximatif trop émotif mais Akhenaton est trop exigeant c'est une fierté et je le sais et ça dérange certains Sénégalais. Oui, tu critiques tout le temps, tu es toujours négatif. Je ne suis pas négatif, je suis exigeant. Même sous barre, ça, dans un bar, on peut me Ah, parce que maintenant, vous vous suffisiez du minimum. Vous avez 100, le sang, vous avez mis 5 de barre, alhamdoulilah. Maintenant, vous sur le am 50 de barre pour am 80. Parce que maintenant, pourquoi tu vas dire am 100%, mais maintenant, vous avez 50% oui je tends vers la perfection il faut être des gens de l'excellence nous devons cultiver aujourd'hui une une façon il nous faut aujourd'hui avoir la culture de l'excellence c'est seulement quand on aura atteint cette culture de l'excellence que le Sénégal sera un excellent pays que les Sénégalais seront respectés que nous serons développés tant que nous n'avons pas la culture de l'excellence à la place de la culture de la médiocrité et de la suffisance mais c'est quoi ces histoires là je suis extrêmement exigeant même et souvent je le suis plus avec ceux qui sont avec moi je suis plus exigeant avec ceux que j'aime que avec ceux que j'aime pas soo xoolee sama exigence ñi ma àndal ñoom laa gën a sonal ñi ma faral ñi ma bokkal kan ñoom laa ëpp ci ñoom exigence que sax ci may xeex ki nga xam ne ànd maa moom li may teg ci ñi ma àndal waa yeewi askan wi Ousmane Sonko gi passé fa ñooñu ni ma taxawee ci ñoom pour ñu réussir taxawu moo ko sax ci Macky Sall bi may xeex parce que nag on ne souffre que du mal que nous font ce qu'on aime dégguleen ma de nit ki li ko metti dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg warta jóge ci noonam waaye ki mu bëgg kii mu jox dayo kii mu faale kooku moo koy def li ko naqari waaye kii nga faale wul di sat noonu bu la defee loo naqari loo naqari parce que nawloo woo mais ki lay def loo naqari mooy ki nga nawloo ki nga def teg ko foo xam ne mu xëy def la noo xam ne kenn waru koo def nit kooku jëfum jooju moo lay naqari tubaab ne on souffre que du mal que nous faut ce qu'on aime moo tax man je suis extrêmement exigeant vis-à-vis de ce que j'estime qui aime bien châtie bien le Sénégalais n'a pas cette culture de l'excellence, cette exigence extrême, surtout. Tant que vous n'aurez pas atteint ce niveau, vous n'aurez pas encore quitté le monde des Lapotons. Vous êtes en Lapotonie. C'est le pays où habitent les Lapotons. Quand je vous taxe de Lapoton, vous pensez que c'est pour rire, vous n'avez pas compris. Le Lapoton, c'est un mot que j'ai baptisé pour caractériser sémantiquement l'esprit sénégalais Le bëree bëree bëree ci nag ñu ñoom lan mooy làppato mën leen mais le làppato c'est un dictionnaire c'est tous les mots qui gangrènent l'homme sénégalensis tous les mots qui l'empêchent de de de de d'aller de l'avant tous les mots jafe-jafe yi téye Sénégal tënk yëpp ba ma ko nattee si ma ma làmb ko bu bari bari ma tënk ko ci benn kàllaama bu ma tuddee làppatu bokk na ci nit day doylu àdduna amul solo ay nañ ko bàyyi mu liggéey ah ku baax la de pourtant mi ngi liggéey lu mu liggéey mu ngi def social vous vous rendez compte social def social du liggéey social du liggéey da ngay liggéey ba noppi ba créer produit ba créer richesse séddale ko fay ay salaire ba mu des nga xool la ka des nga génne ci joxe social yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal ñu ñuy génne asaka yàlla ko ko yàlla néewul ngeen di ngeen di liggéey di joxe asaka yàlla nee na na ngeen liggéey la ngeen ca am ngeen dund ci. ren ba déwén bu ngeen dundee ba noppi ki saw ñaq payoore ngeen dund ci la ca des nga génn ci asaka asaka boobu mooy social yàlla sax newul ñu def social métier social du métier da ngay liggéey am payoor liggéey mooy métier baax li liggéey utu loolu li ñuy liggéey social lay def yàlla newul social social day yàq société social du métier social kenn du ko def politique social exception da ngay fexe ba nit ñi am xëy am métier am xam-xam di ci liggéey am ci lu ñu mën a teddee dund ci ren de déwén ba mu des ba ñu am loo xam ne soxla nañ ñu dund bi jënc ko di ko korkoral loolee la yàlla na amal noo ca fell jox ko miskini comme que social c'est pas la règle social c'est une exception la règle c'est le travail ñu bëgg a jël réew mi bëgg koo samp tabax ko ci social def ko muy métier liggéey liggéey bi léegi mooy social ko wax mooy dafa social parce que réew mi ñëpp ay yelwaankat lañ ñu ci bari ci yelwaan la ñu dundee talal loxo di dund c'est une honte c'est une catastrophe Moi, j'invente un Sénégalais de type nouveau. Moi, je suis dans une dynamique de créer un nouveau logiciel dans la tête des Sénégalais. dama nekk de créer xar au Sénégal bu C'est une valeur yi ngeen bàyyi ñaan maami maami yëpp ay lu contre valeur la baaxut de la di tàggal du de il faut que ñu génne ko suñu pas yi ça ci àll ba def ci ay valeurs yu bees lan mooy social ça loi. vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte amu une casse de dons qui est là, social baaxte ma jox ceeb moom may diw là, yéen gàcce la tubaab doo là, sarax tubaab boo ko joxee ne ko boobu boobu là, danaa la pourquoi nga ma tu vas tubaab fekk là, tubaab ci muy dem nga ne ko am maa là, jox ceeb diwlin maa la tu vas wala maa là, jox guro bi wala maa la jox mbiskit wala là, il va te demander pourquoi tu ma mais tu te prends pour qui toi tu me prends pour qui mais man man pattuma lagguma man man man laggiwuma nga pourquoi nga may sarax yow da nga may yëpp naka nga may dem nga may sarax ceeb naan ma nga may génn sarax pourquoi nga may sarax histoire la koy def yow parce que yéen dañu am dignité mais yéen amul une dignité vous êtes des sous êtres humains vous êtes des sous hommes et sous femmes parce que amul leen ngor amul leen dignité yéen war ngeen di dundee loolu musiba ay nit moo tax ma koy wax du ngeen ay nit nit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg day jomm tàllal loxoom jox ma ma lekk. as gor dina ko def tubaab du ko def tubaab yi ngeen yaakaar ne yéen leen gën tubaab ñu leen gën dañuy liggéey dañu gëm liggéey parce que xam nañu seen teraanga mi ngi ci liggéey seen dignité mi ngi ci liggéey seen bañ a tàllal loxo mi liggéey seen bañ ku leen yàpp mi ngi ci liggéey mooy tubaab façon liggéey bu ne dina ko def pour lan pour bañ a tàllal loxoom mais yéen dem ca mairie ba di ran ñu leen jox ngeen di lekk moo leen gën a dem liggéey parce que seen yaram bi deretu gor ne wu ku ko wax ngeen mer yelwaan du dunde yelwaan ngeen bëgg a dunde yelwaan cëm cëm loolu baax lii day def social mais social du liggéey dajale budget boo xam ne ay impôt la ay bar la état dajale ko yëpp ñu imputé la jox la milliards wala 75 milliards ñu dajale ko ci ñàkk ñii liggéey ñii liggéey ci réew mi a am budget ñu nga ko ay ñu mais vous vous rendez compte social parce que day politique bëgg clientélisme politique il achète les consciences politiques ci budget xam dañ ko pour Dakar mu def ay liste dama ay ay ay ay restaurant ay ay au champ ay tabax ay cimetière mais vous vous rendez compte vous vous rendez compte quand est-ce que Dakar va va va respirer ce que Dakar va est quand que Dakar va am ay espace quand Dakar va am ay projet mais mais mais Dakar vous avez besoin d'avoir des piscines municipales moi je bien aimé que Barthélémy Diaz me dise écoutez j'ai un projet de trois piscines municipales au niveau de la ville de Dakar Nous réhabiliter la grande piscine municipale de Pointe d'être def une grande piscine municipale entre entre à côté de Parcelles Assainies c'est un centre multisport piscine gymnastique affaire yu bari def ko fa ci olympiques, mu nek ben centre multisport am piscine olympique wala piscine municipale pour que ngay dem des sangu ci piscine il fait chaud d'accord ñu ñu jël ben def ko dans la banlieue à Pékin, wala à une piscine municipale financée par la municipalité de Dakar des ay espace vert def ay centre sportif des indi cinéma def ay théâtre euh, la vie culturelle la vie donc euh, sportive et puis la la la l'espace euh, le cadre de vie assainir Dakar ñu am ay feux multicolores nettoyer les les parterres des des routes ah, des des génne suuf si def ay pavé def ay ay ay ay fleurs Dakar ville fleurie d'accord, ville fleurie pourquoi pas d'accord, nekk ñu am un cap benn projet. Au niveau de la ville de Dakar, Dakar, ville embellie, ville fleurie, ou Dakar, ville propre. Ou y a des charges, ou des standards, ou des équipes Dakar, pendant ces 10, prochaine année dañu bëgg mu nekk une ville lumière éclairée une ville propre sans saleté une ville sans sable entier mais une ville verte avec des fleurs des arbres et tout ça une ville sportive une ville culturelle une ville de chant. mais loolu est un méchant. Mais j'attends de médias sur ça mais de médias, il me parle de voyages, il me parle de de bon essence il me parle de bons cochon il me parle de cimetières. mais moi je m'en fous de ceux qui sont au cimetière moi moi je m'occupe de ceux qui vivent que cimetière a mais du ma pas un centime au cimetière à la place de la vie les gens sont en train d'attendre Ni d'une sont mais parce que pas les cadavres là couchés au cimetière qui votent pour toi ce sont les gens qui vivent qui votent pour toi au lieu de s'occuper de ceux qui votent Barthélemy Diaz va s'occuper de ceux qui sont couchés au cimetière mais pourquoi on investit sur des morts dans quel pays au monde on donne plus d'importance aux morts en termes d'investissement qu'aux vivants Dans quel pays au monde Mais ce pays ne marche pas la tête. il ne marche pas la tête. Nous ne pas Mais Bach, il aura ses chemin. man je am à à l'aise pour di parce que man campagne donc je suis à l'aise Bart n'est pas mon ennemi je ne suis pas un opposant de Bach, je suis au soutien de Bart mais exigeant

Vous vous rendez compte Faut arrêter là. mais vous vous rendez compte mais marabout mais nous c'est pas les marabouts qui t'ont bah, il faut que tu arrêtes bah, vous tremblez votre temps à aller chez les marabouts. Ce Seigneur est beaucoup de temps d'une chaleur infernale. Du que des Mais pourquoi faire En défait nous monde ou au festival d'Atal. Vous arrêtez, On vous attend sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour soulager les populations Non, les populations, ce n'est pas les marabouts qui nous ont élus. Mais vous êtes dans la tricherie perpétuelle. Vous êtes dans. Mais c'est scandaleux. C'est écœurant à la limite.

Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que souvent, moi, comme suis quand live, des goûts, effectivement, quand on parle de tous les sujets, puis ça, c'est long. Donc, c'est Yamane Taï. Et puis, voilà, dans le Fay, il y a des Wartan, qui est le thème. Il y a une ñëpp de leen ça, vous wax na bu baax saxul ñu ko ci mais benn commentaire laa gis ben waaye dugal ko bu baax mais c'était pas l'objet du débat euh, du live mais bon voilà ki c'est bien aussi c'est l'exigence il faut être extrêmement exigeant moi je vous invite à l'exigence sénégalais na am pardon na am taxaw temm lu di wax taxaw temm exigeant bu kenn di pamti pamti bu leen bàyyi ñi yaakaar na ay parce que bu ngeen wu Macky Sall la kii Idrissa Seck bi ñoom dañ leen yàpp parce que dem ba dootuñu leen naw la parce que danaan ñii ay xar lañu li ñuy def teg ko dañoo jàpp ne yéen exigeant wu leen mais tant que yéen a ngi wax di yóbbu te léegi waxukaay yi am na mën ngeen a wax ñëpp dégg leen kenn ko ne léegi a wax mën nga soyez exigeants qu'on vous entende on ne les laisse pas faire réseau internet dal ci ba c'est ça l'exigence soyez exigeants soyons toujours exigeants il faut l'être avec Macky Sall il faut l'être avec Barthélémy Diaz mais il faut l'être encore plus même avec Ousmane Sonko demain au pouvoir on sera là on veillera on va guetter on, va l'accompagner mais ce ne sera pas avec les yeux fermés son pied notre pied parce que li ñu bëgg moom moo petax buy ërgët xam ngeen ërgët xamu leen ërgët xëy na amu leen ay pigeon ërgët taxaw ërgët rek yarkatu yarkatu petax yi xët yi xam nañ ñuy ërgët ërgët rek ërgët dem leen ngeen laajte luy ërgët Sénégal boo ko bëggee tabax koo jiite ku ne taxawal ci ginnaawam topp ci ginnaawam ërgët bu taxawee nga cos ci bopp bi rek petax bu góor bu bu petax bi jigéen bi waree nen day topp ci ginnaawam du ko may jàmm di ko dàq acca acca acca pour lan pour mu dem ca tàgg ma nene loolu lañ tuddee ërgët nga gis ma di ko cos di ko dóor topp ci ginnaaw ngay topp ko di ko may jàmm pour lan day bañ mu ci àll bi dafa war a nen ca tàgg ma la war a neneen da koy topp rek fetax mu da koy topp di ko cos di ko dóor di ko topp di ko may jàmm sonal dem ca tàgg ma toog fa dem neni loolu lañ tuddee ërgët président koo ci namee Ousmane Sonko ñëpp ci topp ci ginnaaw rek acca pëyi doo bàyyi kenn loolu mooy exigence xam li nga topp seen ginnaaw ërgët ñaam ñaam jaay petax wala am petax xam nañ luy ërgët parce ne jamais à Dakar foo ko fekkee mi ngi ci avion yooyu ci hôtel de luxe yi restaurant yi dagale ay cagaam di dox baax di tur di mairie Dakar ay fay baax yooyu lay dox voyage rek di noos

lébu yi yéen a dëkk ndakaaru moom ko xajal ci nit ñi ñi ngeen xajal dem ba bëgg leen a génne ndakaaru jël suufu ndakaaru bépp jaay ko ba noppi la ngeen dese ku si néew ñu ne dañ koy nangu ci yéen lébu yi ndakaaru yëpp def leen ñu taxaw ñu ànd ndox ak doole gatu ndakaaru ñu ànd ak yéen ñu xeex Macky Sall ak nguuram bi ñu jóge fi jaay nañu ndakaaru yëpp jaay géej gi yëpp jaay lépp la ngeen dese ku néew lañ dañ koy nangu gone yi duñu am fu ñu amu leen école amu leen dara Macky jaay na lépp naar yi jaay lépp tubaab yi lépp yëpp na ngeen jóg Wakaam Ngor Yoff Cambérène Jàmmalaay Bargny Tëngéej lay waxal de yaraax jóg leen taxaw jóg leen taxaw jóg leen ñu xeex bis na ba suba tey la korite jeex na bu subaa nañ ko ci làbbaliwaat na saf sapp sapp sapp ci Macky Sall ñu ngi leen di nuyu leen ziar di leen ñaanal jàmm di wax ne fanaanu jàmm bu subaa ñu tegaat ko ci gàsta gàsta gi amul teggi tànk amul dellu ginnaaw wasalaam ba kayaar ba gét ndar kayaar rek foofu yëpp na ñëpp jóg ah. na ñëpp jóg laa lay ah. ba ba ngay àgg nguur petit code bi yëpp lébu ya fa nekk nappkat yéen ñëpp jóg leen ba mbuur ba ba ngay àgg mbuur na ñëpp jóg na ñëpp jóg ba kayaar li ko tàmbalee kayaar topp géej gi ba ba ngay àgg mbuur na ñëpp jóg kayaar ba mbuur laa la wax ci tefes gi dëkk bu fa nekk jóg kayaar ba mbuur jóg leen gatsa gatsa rek parce que Macky Sall doomeraam la gatsa gatsa la xam doomeraam la gatsa gatsa rek amul leneen man góoma la leneen lu garsa gas loolu la jéem naa ko doxul ak moom garsa garsa rek bàyyi naa lépp léegi garsa garsa laa gën waaw ah. taal ko génn këru Farba Ngom doyul ak am na yeneen ak yenn yeneen te du moom rek am na yeneen ak yeneen jóg donc c'est possible lépp mën naa ne xeex rek dégg naa ñi ngi dugg ci kër jàpp jàpp gi yëpp bu mu tiital kenn bu ñu jàppee fukk na téeméer génn na ñëpp jóg na kaso fees kaso yaa ngi fees dañ dajeel kenn xañu ko kaso a ngi ñëpp génn fa lañ jëm kaso yi dañ léegi mu dajjeeku ñi ci biir kaso yi ñooy dajje kaso yi génn ndax kaso yi dafa fees amul ragal amul tiit gàtt sa gàtt xeexal Macky Sall rek kaso mbedd ma ci yem bu fukki duggee kaso na junni jóg taxaw xeexal xañuñ ci kaso yi kenn du fa dugg jàpp yi bu mu tax ngeen teggi seen tànk de na ñëpp jóg ñu xeex